conseil constitutionnel jëlee dogalam ba tey ñëpp di laaj ban bés lañuy amalaat jongante falum jiitu réew mi waaye bu ñu sukkandikoo ci maître Doudou Ndoye naam bëgg nañ ko amal ci li mu gën a gaawee waaye àpp campagne bi kenn mënu ko gàntal. parce que c'est la loi organique sur le code code électoral moo fixe la durée la campagne et des campagnes donc ñoom mënuñu ko mënuñu ko ils sont obligés de saisir l'Assemblée nationale mu modifier la loi organique. et la loi organique devra être soumise à la Cour suprême pour mu vérifier ko. mu jàpp ni bu ñu respecté disposition yu constitution bi processus bi mën naa weesu sax ñaari fan ci weeru avril. waa léegi bu fekkee ne nag dañu jël li conseil constitutionnel wax ne 25 février mënatul nekk léegi ñu war a dabu semaine yi ñu perte yëpp mais dinañ dépassé nu mu mënti demee le 2 avril. naam ñaari fan ci weeru avril la mandat bu ñu nattal njiitu réew mi war a jeex. moom mile xam a màcc ci wàllum yoon jàpp ni njiitu réew mi mën naa des ci nguur gi ba kalaak ñuy faral keneen ku koy wuutu. article 36 daal di ne le président de la république élu li ñu wax yëpp bu weesee ba nu ko ne yow la. Mhm. ba pare ñu boole si ki mu fi fekk itam mandaam jeex. léegi président de la république bi nga xam ne moo fi ne tey. Mhm. mooy toog en fonction ba nu installé ki koy ut. mu jàpp yit ni war nañoo dem ci ay waxtaan ngir ñu mën a xam ban bés la ñuy tànn. waxtaan dafa baax ak ñoñ yi ak candidat yi parce que candidat yi seen bopp ñoo ko demandé mu ngi nii ñu bind. donc war na waxtaan ak ñoom ñu seet date yi nga xam ne mën nañ def campagne 21 jours. mën nañ def lii mën nañ def lii mën nañ def lii nu mu gën a gaawee. Doudou Ndoye jàpp ni Macky Sall mënut a démissionné ndax bu ko defee day mel ni ab woor ndax dafa waatoon ci ndeyu chartu réew mi. ni dina toog ci nguur gi ba bés bi nga xam ne ni ku koy wuutu ci lay toog